bokk ànd defar suñu dëkk loolu daal lay euh, joxe comme message comme ni ko imam waxee aussi que ñu bàyyi xel bu baax si partage bi parce que ku xam ne commune commune partage rek la ak solidarité e ak sociale te euh, dinañ si jéem a waslu ak bu baax euh, jéem a def tout pour incha allah fan yi di ñëw ak mois yi di ñëw ak année yi di ñëw ñu jéem a def tout pour que population bi nekk si jàmm et ku nekk daal gis sa bopp si si Wakam gis sa bopp si commune bi.